asalaamaaleykum gars yi wala aleykum Thomas Santama di wax ne képp koo xam ne abonné ko ci page bi wax lu gaaw nga abonné ah activé ko notification bi comme ni ko ñëpp di defee di wax ne encore une fois lay tëdd ma ñëw aussi leen benn coupon du parce que bu la xoolee dinaa dugal vidéo depuis deux jours ou trois jours la vidéo voilà parce que ñuy jéego parce que voilà xam nga gën a xam dañoo xaw a xat tuuti ah moo tax.

Okay. I say Monaco, go boost command of Si vous voulez, I say Monaco, introduce uh, Benfica, number of them. Ngo desa fufre, among them, God, yo. And this. léegi ah kii damay ko gañ wala nii boo koy dus ko rek parce que code 3 voilà waaw sama gars yi yéen ngi gisoon noonu ah cinq mille quatorze mille cinquante sama gars ngi ba bis beneen vidéo